bi. salaamaaleykum man le chef de quartier bu Thiès noonu maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Sidi Sène bon nekk ci euh, rôle de délégué de quartier depuis euh, deux ans. yeew bi tay mun naa ne yeew bu bu bu métti la bu tiss la ci ci jabootu Thiès noonu parce que suba ci lañ mu ci jël see fi né amna xalé bu ñu sànni ci ray bi léegi si bi ma ñëwee constaté xool mu nekk une fiette de à 8 à 9 ans Légui c'est nak nag fekk nañ ko mu teud ñu ngi ko muur benn blouson bu bu bu noir légui si bi ñu ñëwee xool yàlla def muy noy mais amone ay blessures quand même. Mm-hmm. blessure ci yaram bi. waaw bon yaram bi surtout ci wàllu ci jëbi ci jëbi gis man seetlu na fa mu am blessure mais da ngay sentir ne xale bu sonn la xale bu ñu sonal la je ne sais pas xawma na nag façon agression yi ko def mais. sama xel ñaaw na ci sax dañ ko dañ ko dañuy yegg ci moom. ci waaw sama xel ñaaw na ci te yaakaar lool sax police war na cee xam dara parce que ñoom ñoo gën a xool yaram yi nu mu demee. Mhm. ak sapeur. Mhm. waaw ñoom ñu ci laa ñëw nag après ma ne comme kii kii na xaar moo woo moo woo moo woo autorité yi ci laa woo police woo sapeur ñu ñëw constaté mu nekk lu lu lu daw yaram ku fa ñëw tey soxol tooy na parce que seen bu bu bu métti la xale bi buñ ko yëkkati sax da doon yuuxu da doon jooy.

ci raay boobu bébé boobu boo ko boobu dafa dee xam naa dañ koo sànni aussi comme même cas la problème boobu nag la ñu am fii jànkonteel fii à Thiès noonu parce que vraiment bëgg naa autorité yi je lance encore un aussi ñu bàyyi xel ci dëkk yu dëkkuwaay yu mel nii surtout ñi nga xam te euh, bon dëkkandoo yaa ngi fi gan yaa ñëpp a ngi fi mën naa tàggoo bi nekk fare daral pël waaw ñu koy wax euh, Samba Ali Diakh woo na ma di ma di ma di ma wax lu mel noonu mu ne ci goxam bi foofu am na benn jigéen bu doon fóot ci teen bi léegi si doomam ji la ñu këf këf maanaam da doon weer yaakaar naa dafa fóot ba doon weer wan wan xale bi ginnaaw lu mu ko tegee doon ci keeg comme ci àll bi la waa xam naa féetee ko ginnaaw rek daal di këf xale bi jël xale bi nu mu yuuxu naan mu yaa ji gestu rek topp ci ak ay yuuxu yàlla bu dara teewul ay nit a génn ci kanam rek seen waaj rek waa ji sànni saak bi daal di daw léegi laal moo loolu moo ci sauvé xale bi ah dañ ko évacuer parce que vraiment mi ngi doon saigner sa amna fu mu doon saigner ci bakkat bi gis na muy xaw saigner saigné tuuti ci jébi aussi comme ki amone blessure mi ngi doon saigner te yaram bi xamna naa ne aussi yaram bu yaram bi aussi xamna amna ci ay métit parce que bi ngi koy yëkkati rek mi ngi commencé di di di di yuuxu di joy xam wor na ci mom vraiment dañ ko gañ quelque part ci yaram bi bon gis nañ fa ay trace comme comme comme bon lolu walu rôle police la ñom seen liguey yaakaar na def nañ ko fofu aussi xam nga amna ay indice peut être ci ñom selon seen liguey amna li ñuy prélever fofu

taxaw nañu aussi vraiment ñi ngi veillé ne képp koo xam te ne jàpp nañ ko ngay def yéen ñaaw fi mel noonu ah dinañ ko digaal ak yow balaa ma ciy am wàll en tant que responsable dinañ ko digaal ak yow bon bari ñuy interprété noonu am na ci ñoo xam te ñun ay séeréer lañu am na ci ñoo ne xëj na yàlla may nañu ñu xaw a gëstu yooyu moo tax ñun dañuy bayyi xel ci yenn yi aussi. moo période eh, campagne électorale ni buy ñëw yu mel noonu day faral di bari xam nga moo tax aussi vraiment ñu ngi lancé un appel wax naa quartier gi yëpp dem naa ci eh, école école yi tout tànk yi élémentaire beeg muy arpanko arabe yeeg ki fi nekk yëpp wax naa seen seen responsable yi pour ñu gën cee veiller xool seen emploi temps nan la ñuy gérer xale yi pour xale yi bañ di dox vraiment di yenn heure yi ñu xam ne aussi ay responsable lañu ñoom aussi ci ñuy aar xale ci la ñuy bokk waaw.